salaamaaleykum gars yi salaamaaleykum gars yi yéen a ngi topp naan félicitation la yow félicitation félicitation bu xew mi neex neex ba ngeen fàtte borom laser yi xam nga lan laa bëgg Macky sàll gestul borom laser yi ñoo gañe jeu bi de ñoo gañe match bi xoolal borom laser yi ku ci amul xëy nga jox ko xëy laseru lekk du liggéey wutalal booy yi ci lu nekk ñoo ko gañe de ñoo jël ay laser duut ko ci bëtu sale yi ba mu mel ne ay lampe discothèque boîte de nuit gestul borom laser yi merci beaucoup